asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 20 septembre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi sunu lamb la tey nag ak l'observateur yëglikaay bi di suñu lamb nag fa la ñu koy njëkkee ki nga xam ne ni nag moo di Eumeu Sène la ñu xëy gis ko fa mu nga sol ma maxanaam yooxu ba sës Balla Gaye numéro 2 jàkkaarloo ak moom def ca bopp ba ay tréesam takk ripp ak suuf mu mel ni ki nag ñoom ñaar seeni mbir xanaa boog day xeeñaat wala boog daa am ci ñoom ñaar ku bëgg mbir ma amaat ka ko bëgg nag kenn ku dul ki nga xam ne moo di lanjan bi nga xam ne day moom mooy porte parole taay singa lanjan ma yor sañ wax ga ca taay singa daal moo xëy di wax nee na fi mu nekk nii day li leer ba leer daal seen diggante ak ba euh, ak Balla Gaye moom pare nañu fi mu nekk nii daal ngir jël ko loolu daal mooy li nga xam ne mooy waxi lanjan kase bu mag daal bu ñu ko gisee moom dañuy jël ki nga xam ne ni moom moo di Balla Gaye numéro 2 ñu ne ko déet waaye Lac Niang mi lii la fi waxoon moom mu ne buñ gisee kase moom jël ko la ñuy def Lac Niang nag ne na Eumeu Sène moo man Balla Gaye numéro am na ñun wala ñaari promoteur yoo xam ne ne ñu ngi taxaw temm bëgg diggante kii nga xam ne moo di Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 waaye Eumeu moom fi mu nekk nii temps bu muy ñàkk wala mu koy sànni ci àll bi la amul mu ngi ci ab liggéeyam daal jàpp boppam di liggéey loolu wax kii nga xam ne nii moo di Lac Niang la mayor sañ wax ga ca rok fii nga xam ne nii moo di Tay Shinger kii moom ab combat la bëgg di ko wër ngir tëgg ko muy Pa Abdou Fall Paf production fi mu nekk ni day la mu mooy beneen janowaat boo xam ne ni day moo war a dox ci diggante Tapha Tine ak Ama Baldé ñu nar ko tudd nag ramak boo xam ne ni day ramak du siècle su amaatee mu mel ni kii nag fi mu nekk nii moom promoteur ba di Pa Abdou Fall loolu moo ko teree nelaw waaye Ama Baldé moom préféré wul Tapha Tine la mu préféré suñu làmb wax nañu ko amanal bëgg-bëggam ko ci jiitu Bombardier la su ko mënta am mu am Gris Bordeaux yëglikaay bi dañoo xëy tey ñëw ko wax mu mel ni ki daal kon fi mu nekk nii moom utum combat mi jax na lool ak bëgg boole mbir yi ñu bëre kii moom ki muy bëreel fi mu nekk nii mooy problème am muy Moussa Ndoye bu Yaraax moo tax nag yëglikaay bi jàpp na ne day fi mu taxaw baaxul loo ci mënti dégg ndax kii di Papa boolewu ko ci ay adversaire am te ki nga xam ne ni moo di Siteu tamit génn na ko ci course ba moo tax nag yëglekaay bi jàpp Moussa Ndoye mi de fi mu nekk nii fi mu taxawee moom dara dara dara daal baaxu ci sunu làmb xëy tey wax lool ñi nga xam ne nag moom seenam taxawaay dara baaxu ci ba yëglekaay bi xëy tey wax ñu ko moom moo di waa écurie Lamsar yëglekaay bi na sept victoire ak li nga xam ne nii day moo di dix défaite la am ak benn match nul ci saison bi yëglekaay bi ni sunu làmb xëy tey ñëw duñu ko wax mel ni que Lamsar moom ren boo bëggee dégg-dégg dara daal ba dara booloo jeex doxu fa jàppal yëglikaay bi ne boo bëggee dégg-dégg kii nga xam ne nii day moom moo di sëtta at mu njëkk ngi muy def année balance moom bëriwul nees moom fi mu nekk nii daa mel ni koo xam ne nii day sax est-ce que suuluwul yëglikaay bi moo xëy dañu ko wax nee kuréel super étoile tigre Abou Niasse ñoom ñoom ay abonné absent lañ ñoom daal kenn gisu leen ci saison bi ak ay bët Tidiane Faye moom fa nga xam ne nii dañ moo di ca Linguère fa la daanoo fëgala moom daanoo fa nga xam ne mooy arène nationale ba tey ci saison bi nga xam ne moo jeex Quench moom suñu làmb na mooy déception bu mag a bi nga xam ne ren moom la lamsaar am Balla Gaye Junior mi nga xam ne nag dippee na boppam li nga xam ne léegi moo di Mbàkke moom itam ndey dafa luppe ab sosam ndax combat ba mu doon jongante doxoon ci digganteem ak forsa domum jëliwu ca ndam keneen koo xam ne mu ci kii ba la ne wane boppam bu baax a baax moo di Maama Lamine Maama Lamine moom loo ci mën a dégg la dal ñooña dalu ko moom bëri na te bu mu bëri itam wane na boppam bu baax a baax digganteem ak buur siin yëglikaay bi xëy na ñëw wax ci amaatoon na sax beneen combat mu yàqu wala jotu koo bëri muy digganteem ak jokkeel moo tax nag kii nga xam ne nii day moom moo di seen entraîneur wala mu di seen kilifa daal jàppal mu per Alioune Diop moom la mu xam ne day moom nee na bilan bi bu ñu bone masta am moo tax sax moom jàpp na ne lamsaar est-ce que nekkati na lamsaar wala boog nekkatul lamsaar ba nga xam ne moom la ñu xamoon père Alioune Diop moo xëy tey ñëw wax lool ci yëglikaay bi nga xam ne nii day moom moo di sunu lamb waaye keneen koo xam ne nii moom ci ba la ne mooy setta yëglikaay bi na dem na États-Unis de waaw moom daal sol naw dàllam nag wutali États-Unis ngir nag xam naa ne kon fi nekk nii day mën a waajal li nga xam ne nii moom moo di boppam keneen koo xam ne ñun ngir gën a yokk ay mbiram moo tax mu renforcer estafam moo di Liy Njaay mi nga xam ne nag ab promoteur la bu dëkk ci jàmm gën te ñëw daaw ci làmb ji mel ni ki nag moo ko dal moom moo tax mu yokk li nga xam ne nii de moom moo di ab estafam l'observateur moom ko tere ba yandoor daal du lenn lu dul kuréel waa des arènes bi nga xam ne amoon na ko te ñàkk ko ci fi nekk nii nag moo ko tere nelaw te ka ko du kenn ku dul Modou Lo mi nga xam ne daan na ko ñaar yoon moo tax ni likaay bi jàpp na rek xanaa kon ñetteelu combat muy am waaye li leer ba leer daal Balla moom li na ci xel mi wala la ko teree nelaw ba yandoor su yëglikaay bi di l'observateur nee na kuréel nga xam ne nii day mooy bu waawu làmb ji moo ko teree nelaw waaye leneen loo xam ne gis nañ ko fa xam ne moo di ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb mooy li simple bi mu mel ni ki nag ordinateur moom ren wane na boppam bu baax a baax a baax neuf final yoo xam ne day gañe na ko perte li nga xam ne moo di ñaari demi final mu mel ni ki nag la mu ramassé ci xaalis itam bëri na lool lool lool lool lool yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wan ñu ko fa nga xam ne nag fa la mujjee amee ndam moo di fii nga xam ne nii day moom moo di ca sum le 13 août bi nga xam ne moom la ñu génn kon Mamadou Faye ordinateur moom ren boo bëggee dégg dëgg yàgg maar na boppam ci li bu baax a baax a baax a baax waaye man tey ki ma wane kenn la am la waaye santul Faye ngom la sant li ma sol tey ci jasneer moom ma fi génne te xam nga nu mu defam maag sama rakk ji sama seex ba ci lit tv la ko boole lamin ñun ñaar la boole jasneer bi ak même ñaw bi mu ne ko juuma Mamadou Ngom li nga def rafet na ndax Babacar ak lamin moom ku leen boole def na la la war kon Mamadou Ngom kontaan ci yow moo ko waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen sant Babacar ngeen àndoon nag ma moom ngeen àndoon ci revue de l'arène bi nu ànd nag yéen ci jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar di la baal ak sa àjjuma ci yow tam di la di la baal ak yàlla buur bi mu boole ñu jéggal mais di nuyu internet yëpp ci àjjuma ji di leen ziar di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom mais tamit di ñaanal tey nag suñu kilifa diine yi di ko ubbee xaalif général yi di leen ñaanal yàlla guddal seen fan wëral seen ay cër di ko ñaanal tamit taalibe mi di ko ñaanal sénégalais yépp ba ci suñ mbokku chrétiens yi nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm. Amin Babacar Babacar nag tey nag si jàngatu arène bi ñaari quotidien leen si am muy sunu lamb ak observateur lu njëkkee ak sunu lamb sunu lamb tey nag dafa ñëw euh, ubbil journal journal bi nag ki nga xam ne mooy Ladiane soo déggee Ladiane moom mooy bras droit wu Eumeu Sène bi nekkoon roi des arènes Ladiane nag nee na euh, Balla Gaye Eumeu Sène mën na bëree ak Balla Gaye su fekkee ni feneen ko xaas bëree te bal te Eumeu sax moo mun euh, Balla Gaye fuuf sax Babacar. Lanjang moo wax loolu ñu koy nuyu di ko ziar Lanjang di nuyu staff Eumeu Sène bi yëpp tey nag moom xëy na ci sunu làmb lool la wax maanaam buñ leen fayee kase bu ngand bu ko jar ñu jël Balla Gaye kon ñoom daa mel ni kon la ñu waxoon est-ce que du dañ caa jóg parce que mujjoon dégg ci Eumeu Sène mooy dootul bëre ak. ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye mais nag mooy li ñuy wax rek làmb euh, am na moment yoo xam ne bu ci mbër tolloo di wax yenn wax yi jàppal ne mu ngi wax li muy wax waaye bu am na ci loo xam ne jërul jàpp cent pour cent parce que li ñuy wax rek làmb du biir de xëy wasin parce que tey position bi xëy na moo tax ñoom ñuy xalaat bëriwaat ak Balla gay numéro 2 waaw Kanta moo ko man foofu nag bëri na ñaar yoon daal li am nit ñi gis ko ëma daan ko ñaari yoon xamuñu nag bu ñu rawansaate ndax Balla day fay wala déet waaye xam naa daal bu fekkente ne moom daanaat na ko bu ñu bëriwoon tey mu daanaat ko moom muy ñetteel yoon dañ naan moo ko mën fuuf waaye nag loo ci mën a dégg daal est-ce que Balla dina nangoo jël Eumeu Sène actuellement loolu tamit question bu jar a la moom lañ ñag ne leen ay promoteurs yi ngi ñëw di leen seet ci seen diggante ak Lac de Guiers de ñaari promoteur ak yooyu waaye loo ci mën a dégg daal xam naa ne làmb daal mu ngi noonu làmb moom lépp mën xaar ci lépp daal waaw Babacar lu xaw a li ma xaw a jaaxal tuuti mooy Eumeu Sène danaan wax naa nit amul lu kàddoom te tey jii suñu gisee lajaan génn wax lii est-ce que du xaw a waroo tuuti ak li Eumeu doon wax parce que man li ma xaw a jaaxal mooy nit des fois estafam dina génn fekk mër bi sax amaana du yëg mais lajaan moom ku ko xam-xam ka ak Eumeu mais tey jii ce que suba tamit duñu gisaat encore beneen wax jëmale si Eumeu Sène ne bëréew ma ak Balla waaw moo tax ma ne la nga xaar lépp rek xam nga la njàng moom defe naa ne comme ni ñu ko xamee mooy porte parole Tay Shinger te itam foo gis Eumeu Sène foo gisee la njàng xamal ne Eumeu ngi ñëw loolu moom am na oto baag lépp moom ngay gis mooy dawal mooy ne ci kanam kon yaakaar naa ne olof nag dañ ne naar bu ndaw bi lu mu wax ca gàdd ga la ko déggee kon dama foog ne la njàng est-ce que dafa xëyee xëy nii rek di di di di wax nii rek ngir bëgg a wax noo yaakaaruma ko dama yaakaar ne loolu est-ce que du luñ waxante est-ce que jàpp ñu ne fi mu ne bëri ak Balla Gaye 2 am na lu leen mën a andil moo tax mu koy waxee noonu waaye la ci mën a dégg daal du ma bëri ak diw maa ngi wax mbër yi wala dootuma bëri ak diw nañ koy éviter ci seen ay wax parce que li tax mooy sport la ñuy def sport soo koy def maanaam nit ki nga gañe ko gañewaat ko bu mu tax nga ne dootuma bëri ak moom non non non parce que borom day defaat beneen performance yow nga def contre performance su keroogee da ngay soxlawaat pour relever waat. sa bopp mën a jógaat moo tax ba nga xam ne daal euh, il faut ñuy xool communication yi bu baax baax a baax. communication nga wax sax dafa am solo ndax soo setee Eumeu Sène tey ji soo gisee mu egsi fi mu egsi lu mu bëri woon ak Balla gay seen premier combat daan ko moo ko soxali ba mu yéegaat fii nii mu néegoon Balla Gaye euh, Babacar bien sûr parce que Eumeu moom dama daan Balla da ko jig parce que boo xoolee bi mu koy njëkk a daan bi mu jamono joobu bi mu daan boobu Eumeu boo xoolee ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye Gris Bordeaux sax xawoon na ko romb tuuti boo xoolee ci côté ay kaseeg yooyu mais bi mu daanee Balla Gaye dafa ñëwaat bokkaat ci làmb nag wane boobu te boobu la daan na mbër yu baree baree bari biir Pikine ma ñëw stoppé ko ñoom booy sëy ndem ci yàlla sa tay seen signor yàlla na ko yàlla yërëm bàjj seeraas ñoom ñëpp Balla daan leen ak yeneen i mbër ñoom kuli fay wane boppam mu ñëw stoppé ko xabal ko daan ko jël bu rëy ñëpp xam ne ama seen mi vrai champion la ñuy demati di demati di demat Balla nekkaat ci beneen lancé wala ne ci ay jafe-jafe ñëw gën ku ca dugal bi ko Bombardier daanee Eumeu Sène jëlaat ko daanaat ko avec la manière yaa ngi dégg ba mu ko daanaatee am na lu bëri lu mu juralaat Eumeu seen ci carrière am kon yaakaar naa mbir mu mel noonu nag ngeen bokku làmm bokku géew balaa ngay wax ne ko dootuma bari ak moom daal man da nga koy teg fu leer a leer daal parce que sport la ñuy def. Babacar ñu jógee nag si combat boobu dem nag si Pape Abdou Fall Pape daal nee na combat bi nga xam ne mooy Ama Baldé ak Tapha revanche bi intéressé na ko trop mais nag lu ñu xaw a jaaxal tuuti nee nañu Ama Baldé moom Bombardier la gën a soxla ak euh, Tapha Tine. waaw Pape ñu koy nuyu di ko président des promoteurs moom ah yaakaar naa loolu itam combat parce que revanche la Ama ak Tapha moom actuellement nit ñi soxla nañ a Bombardier la gën a bàyyi xel wala sax Gris Bordeaux mais nag loo ci mën a dégg digganteem ak Tapha Tine itam dañuy wax ne combat bu jaadu la ndax dafa daanoon Tapha te Tapha bëgg na fayu kon Pa Abdou Fall moom mu ko bëgg ah yàlla na yàlla def mu dégg staff yi ba réussir ko wala itam keneen ku mu nekk wërsëgam itam ba tey mën na nekk rek parce que lamb ji moom mooy tëddee noonu ku ci nekk rek pour man lii sa wërsëg bu soobee suñu borom di ko tëgg Babacar ñu jeexalee ak sunu làmb ak euh, li nga xam ne mooy bilan yi nga xam ne moom la ñuy def nee ñu daal bilan wu Lansar bi nga xam ne fa la Quench nekk euh, Siteu ak Nees ak Fëggala nee ñu euh, saison bi ñu génn def nañu 7 victoire 10 défaites ak benn combat nul Babacar. waaw loolu moom ci Lansar xam naa ne du bilan bu positif par rapport ak ni doon gisee ñuy doxee at yi passé mais nag loolu mooy sport des fois day yéeg niveau bi neex lool des fois tamit niveau Tidiane Faye ñàkk kombaam fëgg la ñàkk ñoom ne kuréel ay Abou Niassi ñu ñëpp ay tigre bëriwuñu vraiment muy écrit boo xam ne itam euh, écrit bu mag la donte yàggul la judd mais la fa ne tey ci mbiru grand combat bëriwul ci écrit yu mu nekk mais nag sport mooy tudde noonu moo tax contre performance boobu vraiment métti na trop trop par rapport ak ñi nga xam ne mooy Lamsar ku mel ni Maama Lamine nag moom gis nañ ko mu wane na boppam moom xale la boo xam ne nii xëy na loolu moom yàlla dimbali na ko mucc Kuwens ñu ngi ko doon xaar moo jën kayre mais gis nga fa mujj tamit muy déception boo xam ne bu rëy la moo tax seen entraîneur wax na Alioune Diop nee na moom est ce que Lamsar bi mooy nekkati Lamsar ba woon sax mais pour man dama naan Lamsar ba tey benn bi la rek xëy na li ñu war a amaat mooy daal boolewaat xol yi xam nga euh, ndey kumba leen dafa am gis nga bu ñu dara te kenn amagu ko nit ki dañ ne bu wut dara te amagu ko bul ko gaaw a zisé mais des fois nit ki nag am dara am beneen melokaan yaakaar naa nag. dama leen di waxaat ñoom mbër yi ak équipe yëpp laa koy wax sax nañu gën a joxaat considération seen entraîneur yi parce que entraîneur day sonn ci mbër trop te at yi ci ginnaaw lamsar ku ne gis na ni mu doxe lool loolu nag li ko faral di indi ci li ñu mën a wax mooy cohésion koy indi xol yu ànd yeneen di jàmm mais nag des fois ñu dem ba benn moment gis loo xam ne nii si équipe yi bëri na ci lu bëri loo xam ne nii ay diggante yoo xam ne bokk na ci liy suuxal équipe fi mu nekk nii Babacar nu fàttali ne sax l'ensemble toog na benn année boo xam ne moom moo jëloon pees écurie yi. moom kay est ce que benn année la sax am na moment moom vraiment fooy nekk nii daal nañu bàyyiwaat xel ndax ñi leen yor ay borom xam-xam lañ Père Aline Diop moom yaakaar na booy wax lamb Sénégal ba dem ci moom mën ngaa ferenku laayu ndax lu mu ci wax rek bind ko téere waaw kon nag nañ leen ñoom xëy na jox nañ leen jàpp naa sax jox nañ leen ciir mais Babacar nag suñ jógee suñu laamu nag ñu dem nag si journal bi nga xam ne moom mooy observateur observateur nag moom su fekkee ne suñu laam lajaan bi ngi wax ni que Eumeu Sène pare na pour bëre ak Balla Gaye dafa mel ne Balla Gaye instant bi nii bët bi yëpp mi ngi ko teg si troisième combat ak Modou Lo ndax nee nañu instant bi nii il est soo déggee obsédé nag moo naan nelawatul yennalatul fanaanatul xelam yëpp mu ngi préparé komba bi nga xam ni bëgg na ko ak ki nga xam ne mooy Modou Lo roi des arènes Balla Gaye daal dafa mel ni fu roi bi nekk daal foofu lay teg bëtam maanaam moom roi bee ko tere nelaw wala sax ay nelawam neexatul wala doyatul ndax roi bi waaw kon nag euh, loolu li ñu ci mën a jàngate daal mooy nit ki tamit boo nekkee ci dara ah bu ñu sañoon la ngay bëgg mooy nga wane ci sa bopp xay na Balla daa bëgg ci la roi des arènes roi bi nag actuellement mu ngi ci Modou Lo mu ngi biir Parcelles Assainies di nelaw kon li am solo daal mooy Balla moom xam naa ne couronne bi intéressé na ko trop est-ce que dina neex a tëggaat nii coûte que coûte loolu mooy question bi waaw parce que tamit fi mu nekk nii ñu ngi wax Modou loo mu bërewaat yeneen combat diggante ak Balla doog a mën a neexaat waaye loo ci mën a dégg daal jàppal ne moom couronne bi ñëpp a ko soxla Balla nag ki yor couronne bi fi mu nekk nii bi ñu bëree ñoom ñaar defe naa combat bu mujj a bëree moom la ko bëreel waaw kon fi mu nekk nii daal ah nañ yónni yàgg ba xam rek fu ñuy mujjee bagage yi ak couronne bi si kàddu yooyu leen di tàggoo di lay jox dig daje suba wala lundi. lundi incha allah mais nag ordinateur mi itam gis naa ko suñu lamba. Ah. waaw ordinateur waaw waaw def na def na nee def na sept sept gala. si sept gala yi gagné na si parce que deux millions trois cent quatre vingt cinq mille. Oh, voilà deux millions trois cent quatre vingt cinq mille euh, waaw gagné sept final perte ñaari demi final. waaw ak benn quart de kon moom itam defe naa ren lutte simple bi yaakaar naa moo ci jël pee loolu tamit dafa jar di wax quoi ndax mburu simple yi dañu bokk ci làmb ji kon di ko féliciter waat rek moom di fàttale aussi euh, euh, adversaire Bombardier bi nga xam ni foofu si Leewtoo euh, point net lañ ko lañ ko lañ ko bind neen nañu adversaire am bi léegi xam nañu tur bi neen ñu Jérôme Le Banner c'est en français Babacar. Jérôme Le Banner ah yàlla na ko Bombardier gagné bu dee MMA jële fii ci Ndakaaru pour mois de décembre ah ci Leewtoo point net lañ ko jëlee waaw loolu tamit moo lay wan ne rek mbër yi ñu ngi jéem a yeneen. sport yu bokkul sax ak làmb ji ñu leen xamoon loolu tamit yokkute la avantage gis nañ si ta tey mu nga fële États-Unis di waajal combat am Bombardier bu ko amaatee muy deuxième combat ndax moom moo ko njëkk a def kon tamit ñu ngi wax ak yeneen mbër ku ko ci mën a defee nga defi ko parce que itam lépp liggéey la rek daal. Hmm. lépp liggéey la Babacar si kàddu leen di tàggoo di leen jox di daje leen di incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mère Sow di nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu dadigéey naan ko teranga na yokk di nuyu Astan ni depuis Italie DG Brahma chéri Khadija Diallo di nuyu sama doom yooyu noonu euh, bébé Fallou bébé Rokaya bébé Penda bébé Mam Diara bébé Junior ñoom ñëpp maa ngi depuis Parcelles Assainies unité 26 di nuyu aussi Aïda Diouf di ko wax tamit teranga bi tamit bëri na jërëjëf Babacar waaw Aïda ñu koy nuyu ah di ko ziar bu baax a baax ci maquillage bi te moo ne woon sa anniversaire tëdu wala ah defe naa ne nga ay daf la jox montre pour anniversaire de. ko joxe dafa rattra mieux vaut tard que ah, ok waaw loolu c'est normal moo tax ñu koy magnifier kon moom démb la ko màggal moom ma ci nuyu tamit ku mel ni Boucar moom tamit da doon def démb anniversaire am Boucar Ndour ak sama benn yaay soxna Anna Cheikh Bintou ci Louga da doon fête anniversaire di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñuy mention spéciale à Mamadou Ngom parce que lii ma sol tey ci jasneer ak rafetaay gi macha allah moom moo ma ko jox Mamadou Ngom bu góor a soog xam nga di sama mën naa ne doomu nijaay parce que Ngomee ni ñooy samay doomu nijaay maag Lamine bu Lutte TV la ko boole te ak Babacar moom ku leen boole rek wàcc nga ndax maag moom ñoo bokk nday ñoo waa ñoo ñoo bokk lépp loolu yàlla moo ko dogal muy xale bu baax ma koy nuyu di ko ziar di ci profité nuyu waa ñaaw Jibril Fall police ci frontière parce que dañ dugg frontière ñu accueil ñu accueil bu baax a baax ak ñaaw ba baxaw duñu fàtte kenn xam nga ki nga xam ni mooy paate Gambien Xadijatu Sow borom White House ñu di ko nuyu di ko jaar di nuyu Jamaïque White House White House House House ça veut dire madame fas bu weex nu ñu koy la horse voilà noonu la fa demee kon Xadijatu nuyu nañ la bëggee Jamaïque mi ñu fay yóbbu woon di nuyu Gambien yépp xam nga jibal Touré duñ ko fàtte ndongo Cissé ñoo ñëpp vraiment Gambie daal dañ faa dugg vraiment mu mel ni ki daal dañ faa dëkk complètement te sax mën nañu fa lañ dëkk ndax ak jàmm ngay Kumba Fall di balu ñëpp ax sama waa dëkk waa ak yaay mais maître ko fàtte sama meeru commune Ndondol maa ngi koy bégg bu baax a baax di jaal tamit sama waa dëkk ndax dama sama benn bu gaañu jamono bi maa ngi gaañ ji gaam ñu koy wax mère Yande Sène na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di nuyu suñu ay kilifa fii Pape Thialis Faye ak Diaw ah doomu ndeyu Kempes Kempes Siriami Silla ah ñu koy nuyu bu baax a baax moo newoon ci caméra bi ak ki nga xam ne nii mooy faal ci montage bi kenn du ko fàtte moom tamit jekk si kim laa koy wooye ay sa fay bëgg nañ ko ndey kumba kenn du yow Khady Rose Ndiaye duma la fàtte tuuti yaay Sarr nuyu naa ñëpp yàlla ñëpp am jàmm.